salaamaaleykum mbokk yi ñu leen di nuyu di leen jaar di leen ñaanal jàmm inscription green card yi nga xam ne day am at mu nekk te waa Amérique di maye ay visa mu doon nag inscription boo xam ne nii dañ koy amal fii ci Mbàkke tableau caabi jàkkaarloog marché Mam ma képp koo xam ne nii bëgg nga ko booy ñëw da ngay indaale loo fay inscription bi su ko defee daañu la photo joxe say adresse envoyé ko la ca des nag sa sens lay doon nga toog xaar ñuy ñaan rek képp koo xam ne ni inscrire nañ ci suñ borom defal la nga gagné suñuy numéro 77 704 29 92 77 704 29 92 wala 76 496 17 77 inscription green card la mooy loterie yi nga xam ne visa yi nga xam ne waa Amérique ñoo koy def mu nekk ñu di ko maye képp koo xam ne nii ñëw nga fi daañu la inscrire su ko defee rek la ca des nag mooy nga xaar sa sens ndax ñun mayewuñ ay visa mayewuñ itam ay passeport waaye dañu lay inscrire ci loterie bi nga xam ne nii waa green card di waa Amérique ñoom ñoo koy maye at mu nekk te yàlla dogal nag ñu ci tànn ñu bëree bëri bëri ñu ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp di ñaan képp ku ci inscrire rek yàlla yàlla dogal nga bokk ci ñi dem ñu fàttali leen rek ne képp koo xam ne nii soxla nga ko mën ngaa ñëw fii ci Tablatia bi ci doodaan bi boo ñëwee dinañ la inscrire booy ñëw nag na nga loo faye inscription bi wala bala ngay ñëw nga woote ci 77 704 29 92 77 704 29 92 wala nga woote itam ci 76 496 17 77 76 ñu fàttali leen ko inscription green card yi nga xam ne Amérique ñoo ko daan def muy ay visa te muy am at mu nekk ya ñuy ñaan rek képp ku fi inscrir yàlla na suñu borom def yàlla na suñu borom def nga bokk ci ñi gañe jërë ngeen jëf